arraabi bu ñeenteel bi añ yu diima moo di mu saxal asitra sutura sa xataa yadduloo ba ba muy jege minal ard ci suuf mene ñeenteel bi mooy bala moo dindi tubayam mbaa asku mbaa mbaa dara na yuug ba jege suuf bu dee foo xam ne amaana kenn seen ko mbaa dara kon na yuug ba jege suuf hmm, ko defee nag door a dindi sutura sa alxaami su juróomeel ba añ ya tamit mooy mu sukkandiku xalaari ji li ci tànkam al yusra bay càmmoñ maanaam bokk na ci ngëneel bu xasee ba àgg suuf mu ëppee ci wetu càmmoñam maanaam sukkandikoo tànkub càmmoñam dañoo wax ne yombal génn gi li wara a génn génn assaadi su juróom-benneel bi ila rabi xachara ba fukkeel ak ñeent ay yu farrija mooy mu soreele bay na faxi day diggante yaari luppam wa an yajtani ba ak mu moytandiku almawdia béréb ba ak sulbu bay aji dëgër wala ak ndox ma addaa ima may aji sax maanaam ñeen li tàmbalee juróom-benneel ba fukk ak ñeent da ko bëgg a far sësale benn yoon kon fukk ak juróom-ñaareel mooy bu àggee suuf mu yàng diggante ñaari luppam mooy ñaari lupp yu soree yërale googu mooy sore la ñaari luppam di ko kooku moo ko juróom moo ko juróom-benneel kon ko juróom kon mooy na wattandiku béréb boo xam ne dafa dëgër ba noppi am sobe xam nga su dëgëree ba noppi am sobe dañuy dañuy ragal bu àggee suuf sobe sam bu fekk tax ko su taxawee itam mu tiis ko ndee sax bu fekkee ne léegi bërëb ba dëgër na waaye laab na kon moom day àgg suuf ba na wattandiku ndox mu ne tekk mu ne ndoxum deq rek wala déeg mu dem di ko mu dem di ca faj aajo ndax xam nga ndegam ndox mi moom nekkul di muy daw lu ko yàq day yomb bu doon ndoxum deq wala géej moom duñ ko aaye ndax moom dara ko sobeel dara du sobe du ci gaaw a fee ndox mi moom dana tekk te bariwul moom ko caa def wa yu xat yi ak mu muur rasahu boppam na ci teggin yi muur boppam ndax rus yàlla ak malaaka yi wa an laa yatakallama ak mu bañ a wax illaa li muhimmin nara ngir aji yitteel ka xaw fi fawaati nafsin ni ki ragal faatu bakkan aw maalin wala alal ba tey nee bu xasee dugg ci wanag tàmbalee faj aajo na moytoo wax jenn wax joo xam ne mënoon naa ñàkk lu mënta ñàkk mel ne bakkan bu nar a gaañu niki gumba gumba gum seen bi bëgg daanu ci kàmb wala nit bu seen bi bëgg lakk mbaa yi demee noonu nga xam ne bakkan la faatu ba alal kon moom dana dana war day war wax tax aar bakkan boobe ak alal jooje wa an yattaqi ak mu wattandiku arriixa ngelaw la na wattandiku soflu ngelaw li ndax bu sofloo ngelaw li teral di wëlbati sobe si mu jëm si ci moom wal juhra akum pax moo xam ne gasu ko na wattandiku pax moo xam ne gasu ko pax moo xam ne gasu ko moom am amaana la ko gas nekk ci biir bu saw mi àggee ci moom rek mu daal tàmbalee génn moom ci bopp bu ko séenee mën na mu daal tiit daal jóg bu ko daw sobe si daal di taq ci moom bu dee kan moo xam ne moo gas moom baax na wal malaaxina ak muulukaay yi ak talaasa yi di yett am na yetti béréb yoo xam ne ko moytu ndax li ci ëpp koo fa def bu njëkkee moolu la wax yee ñoom mawaadihu julloo si naasi mooy béréb bi tooguk nit ña fan ñu toog nit ki bu dee ker wala bu dee jamono sedd fañ génn di ko bëgg naaj yu jàpp leen jant yu jàpp leen seen béréb bi toogukaay daal moom moo xam jamonoy tàngaay moo xam jamonoy sedd la na ko wattandiku bañ ko faa def watturuqaatum ak seeni yoon mooy fa nga xam ne mooy yoon yi aw na ko moytoo def ak fa ñu roote bir bi ñu roote na ko moytu waaye yestatiri ak mu suturlu xan ayunin naa si walis bëti nit ñi bëgg nañu tam mu am lum làqoo bu dee garab wala bu dee leneen ndegam ci àll bi la na fexe ba am lum làqutoo bañ a nekk fu ñu koy séenee waan yeb xuda ak mu sori xam masaamihim walis seeni nopp isakaan dem nekk na fil fadaa yi ci àll ba dene bu dee ci àll ba nga xam ne mën naa taamu kon dañu bëgg mu sori nit ñi ba nga xam ne nit ñi duñ dégg dara ci lay génn ci moom bu amee kàddu duñ ko dégg bu dee kër gi nag moom fu war a nekk rek fa la ko mën a defee wa an laa yastaqbila ak mu bañ a jublu al qiblata qibla wala yastadbiraha tey du ko wan gannaaw ida kaana dem nekk na fil fadaa yi ci àll ba wala mu yekkoon te amut fii ci moom saatirun jenn aju suturaal maanaam bu fekkee ci àll ba lay demee woon ak te amul dara dox digganteem ak xibla xibla mooy fi ngay julli jëm kon yooyu jamono na fexe bañ jublu xibla bañ ko wan gannaaw la jubluwee ci des na ormal xibla ci wan ko kanam mbaa wan ko gannaaw la jubluwee ci des loolu nag mooy bu fekkee foofu ab xam nekk ak ndànd fay-fay la nga xam ne amul dara lu dox digganteem ak xibla fayin dem am na fii ci moom saatirin aju suturaal fa fii man hii nekk na ci tereem xawlaani ñaari wax almuxtaar jañu tànn min xuma ci ñoom ñaar alman xum moo di tere ga ñaane bu fekkee ci àll bala am na sax lu dox digganteem ak xibla ni ki garab mbaa geer mbaa yooyu am ñu wax ne sañas naa jublu xibla yooyu jamono mbaa wan ko gën am ñu ne déedéet déedéet ji nag moo gën a wóor mooy aaya googu waaye moom itam moo wax loolu rek waaye boo xoolee saraa bi dana ne eh, li gën a wóor mooy daggan na mooy bu dee ci àll ba bu amee lu dox digganteem xibla kon aayatuñ jublu xibla mbaa wan ko waa wa ama fi am loxoon daal ak defoom fil mën si li ci kër ga faye joos na dagan mutlaqan nu mën di demee ah ni dama jublu ne moo xam nekk na xunaaka saatirun aju suturaal am laa wala déedéet kaana moo xam nekk na naa ko foofee mashaqatun ab coono am laa wala déedéet nee na bu dee ci kër gi la koy defee moom <clears throat> fu mu jublu rek baax na moo xam digganteem xibla am na lu fa dox moo xam ko moo xam jéem gaa jublu xibla maanaam jéem gaa moytu xibla dana ko sonal wala déet waaw maanaam bu ñu seet ba xam bopp doon jéem a moytu xibla dana ci amub coono wala déet moo xam am na ndox digganteem xibla wala déet daal moom fu ko neex rek jëm fu mu ñoo xam ne bu ñu lëggee seen wàll moom dañ ci siddaal loolu maanaam defee ko noo xam ne bu kii toog bu toogee du jublu xibla du ko woon gannaaw am ñu koy cay jéem a defaale ngir ormaal faslun li ab dog la nawaaqidul wudoo'i way firi jàpp arbaxatun ñeent la ay yi nga xam ne ñoo tëj jàpp ci ni ko teqalee moom ñeent rek la ci kaw ni koy waxee al awalu bu njëkk bi ar riddatu mooy ak murtat waxiye moom nag ar riddatu kufrul muslimi kufrul muslimi moo di weddik ab julit maanaam ar lay firi mu ne moom mooy ki nga xam ne duggan na ci lislaam gannaaw bu waxee mbaa def lu ko génne ci lislaam ah, loolu mooy ar riddatu bu fekkee jàppoon na yooyu jamono jàpp moomam toj na suñ ko waaroon ba mu nangoo dil si waat ci lislaam lam gàntu woon mu nangu ko it tutee moom moom day jàppaat rek attaani ñaareel bi achak mooy sikki sàkk fii wujjoodi taxaarati ci amuk laab aw fil xadasi wala ci amuk toj aw fi saabixi wala kan wala ci aji jiitu ja min ci ñoom ñaar maanaam nee na ñaareel bi mooy muy sikki sàkk ba xam jàppoon na wala jàpputoon waaw kooku moom dafa dëgg kooku moom dafa doy waar xamatul sax ba xam jàppoon na am jàpputoon kooku dañ koy wax ne ko rek wax ji gën a wóor mooy jàppoo woon rek ñaareel bi nag mooy day sikki saak wóor na ko ne jàppoon na waaye day sikki saak ba xam ndax jàpp moomu toj na wala tojut mooy aw dañuy jàpp lu gën a rek ne ko jàpp moomu toj na jàppaatam ku mujj ki nag mooy wóor na ko ne jàppoon na wóor na ko demoon na ci wana wa ba def lu toj jàpp waaye xamatul nag kan moo ci njëkk kan moo ci mujj su ko wóoroon dem ci wan waa njëkk njàpp maa mujj kon dana ko wóor ni mu yeegum njàpp su ko wóoroon ne itam safaan ba la it ko wóor ne yoratum njàpp waaye ci wana wi moo mujj xam ne kon na jàppiwaat amatum njàpp maalam yestan ki xulli feek taqawut ak moom achakku sikki sàkka lu may am xelam dafa baaxut su fekkee xelam daa baaxul nga xam ne lu mu def daa am lu ko xel yaar kon buy sikki sàkk am jàppam toj na am tojut day jàpp ne rek moom tojut ndax ndegam moom bis bu ne ko benn yoon bari gi moom mooy du ko benn yoon ci guddi du génnal loolu moom kon su ko defatee rek sa yow mu doyloo njàpp moom yor te bañ a jàppewaat ak su ñetteel bi moo di am toj nee na xadas ba tey day toj am jàpp waxuwa moom maa la nga xam ne xaraja génn na min ahadis sabilayni bàyyi ko ci benn ci yaar yoon ya man nga ne bàyyi ko ci benn ñaari bunt ya xalaawa ci sihati ci anamu wër wal i'tiyaadi ak bu baaxoo ah nee na ñaareel bi mooy bu am toj génn ci moom toj nag mooy lépp loo xam ne génn na ci buntu sawukaay bi wala ci buntu suuf bi te adoo faa génn rek waaw te te itam am wér di waralu ko waaw kon su boobaa na toñ jàpp ni sow ak xayta ak masiw ak wadiyu ak man yëpp aada woon nañoo génn ci foofu ci ñaari bunt ñooñu yooyu na kon loo ci xam ne génn te du wéré di rek su waa dana toñ jàpp su fekkee daa am wéré di goo xam ne yooyu day génn ci moom nag te normalut ndax génn bi kenn mënu koo takk su boobaa ko daal di xam ci boppam su boobaa kon du ta jot jàpp koo xam loolu mooy jokkale jokkale mën na am ci saw mën na am ci gelawal defe naa tudd gelawal léegi bi may tudd ita njàpp waaye ci la kon saw ak yu lëj lépp loo ci xam day génn ci nit ki te ànd te ko waral nga ne moom nu muy génne normalut kon du du ta njàpp waaw man man lay génn sax muy jàpp ndax yàllaa ko teggoo wéra di waaye nag bu fekkee ne na moom yooyu buñ génnee rek jàpp mu waaw ba tey nga seetluwaat ne bi ñu ne yooyu bu dee génn ci wéra di kon du tojati njàpp xam na ñoo xam ne ñoo jàpp na lislaam boo wax ne moo xam lim koy dikkal ëpp moo xam lim koy ñàkk dikkal ëpp dangam xas na amee loolu ngànt rek moom am njàppam du tojat am njàppam du tojati benn yoon am nañu wax ni sax mënees naa roy jooju wax ndax moo gën a jàpp ni ci lislaam am ñoo xam dañuy teqale ne bu fekkee lam koy dikkal moo gën a bari kon du tojati njàpp waaye bu fekkee lam koy dikkal na moo wér di moo gën a néew nag su boobaa kon dina di toj njàpp ma arrabixu ñeenteel bi al asbaabu moo di sabab ya kon ñetteel laa weesu léegi kon ñeenteel bi kon ci laa toll mooy sabab yi waxee ñoom salaasat ñett lañ al awalu bu njëkk bi lam su man mooy laal koo xam ne toojadu daaxees na am wala def na am rek al ladatu bànneex bu lam si yi cig laalam fil aadati ci aada ka sawjati ni ki soxna wal amati ak jébéer ñu ne jébéer mooy ab jaam bu jigéen ni ki ab taar ñu koy waxee ci wolof nee na bu njëkk bi mooy moom mu jàpp ba noppi laal koo xam ne kii daayees na ci am bànneex ci nit ak nit rek ci nit rek mel ne soxnaam laal ko daay na ci am bànneex ab jàmbu jigéenam noonu jigéen di nekk jàmbur ci moom itam noonu laal ko daan nañ ci am bànneex yooyu nag bu jàppee ba noppi laal kenn ci yooyu dana mën a toj jàpp ma loolu dana toj jàpp ma ci sart bi lee ngay bëgg mooy in xasada dem jublu na allazata bànneex wa wajadaha te mu am ko aw laa wala jubluwu ko ñoo ci yemoo aw wajadaha wala mu am ko min xëyri xas di jublu jublu maanaam ki nga xam ne bu ko mosaa laal mën na ca am bànneex ni ki soxna wala jëbër wala jàmbur bu jigéen su ko laalee laal goo xam ne moom naka jekk da caa jublu woon a am bànneex kon mu am ci bànneex ba mu jublu woon ak ñàkk ca am ñooy moo kooku moom jàpp ma toñ na wala koy laal jublu ci woon bànneex waaye far na ko ci am ci dogalu yàlla ba tey comme loolu du tee mu toj benn rek moo lu toj mooy ba mu koy laal jublu ci woon bànneex te amu ci bànneex boole ci waaw kooku moom du toj a tax mu ñaareele ko aw xasadaha wala aw aw wajadaha wala mu am ko min xayri ci lu jublu ilal xublata dara foon fil fami ci gimiñ fa innaha naka moom tànn xudd day firi njàpp mutlaxan ak mën mën di demee fala turaha deful sàmmonte ci moom alladatu bànneex ba mu des foonu gimiñ foonu gimiñ moom dañ ko réer dañoo wax ne bu ko ko ci gimiñ sax lu tee njàpp ma toj foon bi ci des na nga xam du ci gimiñ nag moom dañu wax ni moom bu ci kooku jubloo bànneex mbaa jubluwu ko ci waaye am na ko ca koy tax a waaye bi ci gémmiñ moom dañ ci sartu mu am ci bànneex wa xawlu naa suñu wax ji nag ne lam su laal koo xam ne toojal def na am lëzatu bànneex bi si ci laalam aadatan ci aada dañ ko wax ihtirazan ngir wattandiku nga xam ne laa toojadu daahist am daawuñu am war nga itam laa toojadu deful am rek alladatu bànneex pilam si ci laalam aadatan ci aada fa innaha naka moom laa tanqudu du firi jàpp waaw daa wax ne boo gisee ñu la boo laalee koo xam ne daayes na ci am bànneex ba misaale ko soxna ak dañ ci moytu nga duggalaale ci koo xam ne ku ko masaa daal doo ci am bànneex benn mu dawi bopp wala muy sa mbokk mu la jege moo xam ne kenn daw ci xalaat am bànneex moo tax mu ne ka saxirati ni ki xale bu jigéen ba allati ba nga xam ne laa tushtaha def ko mën a bànneexoo wal maxarami akub araamante kal ummi ni ki ndey wal binti ak doom bu jigéen wal uxti ak mbokkum jigéen nga yii ci aada kenn daawu ci am bànneex xale bu jigéen bu ndawee ndaw laal ko daawutu ci am bànneex ba tey koo xam ne mag la waaye araam na ko ni ki yaayi boppam ji wala doom bu jigéenam mbaa mbokkum bu jigéenam ba tey dañ leen daan seexlu nga xam ne laal leen daawutu ci am bànneex kon nag mu ne laal laal kenn ci yooyu du tax njàpp ma toj donte am na ci bànneex ci waxi ñenn ñi hmm. am na ñu ne ñii moom bu leen laaloon donte bànneex la ci jublu woon te am na ko ca boole ci du tax mu toj waaye am na lu ñu wax ne ndegam moom àgg na ci ñàkk seexlu dara ba àgg ci di ci bànneex waaw kon nee nañu dañ ko yemaleeg jàmbur nga xam ne bu fekkee bànneex la jublu woon te am na ko ca njàpp ma dana toj bu fekkee jublu ko waaye fan na ko ca amit du tee mu toj daal moom la yenn ñu wax wata fara bi naa war raajihu an naqdu fi l mahrami mahal qasdi wal wujdaani mahan aw mahal wujdaani faqat wa kasaalika mahal qasdi faqat inda bni rusdin li fisqihi bi haadal qasdi wa awlaa in kaana muttasifan bil fisqi qabla haadal qasdi ataani ñaareel bi masu zakari nafsi yi mooy laal sa karas boppam sa al muttasil say aju jokk ci moom mu mu laale ko bi baatini kaf yi ci biir tengam aw jàmbi yi wala wetu tengam aw bi baatin asaabi yi wala ci biir baaraam ya aw bi jàmbi xaa wala ci wetu baaraam ya min xëyri xaa ilin ci dul aji diggale xam dan moo xam ci tey la aw saxun wala ci njuumte il tasa moo xam bànneexu la il tasa moo xam bànneexu na am la am laa wala déet am laa mooy wala bànneexuwut mooy am laa wala déet nafsahu moo xam laale na ko minal kamrati ca bopp ba aw xëyriha wala lu dul bopp ba dafa wax ne ñaareel bi ci saw bi lay wàññi mooy mu laal sawukaayu boppam bi laaloon sawukaayu jàmbur muy keneen du tax njàppam toj sawukaayu boppam lañu wax te mu laale ko li xong ci teng li ba wetu teng yi mbaa li xong ci baaraam yi wala wetu baaraam yi waaye su ko laale woon bitti teng li nga xam dafa ñuul wala bitti baaraam yi nga xam daa ñuul kon ba tey lu tax jàpp ma toj te itam mu laal jëmm ja dara doxul digganteem ak loxoom bi mu ko laalee bu fekkee am na lu ko dox digganteem ak moom donte sirib sirib ji woyof la wala tu tuye ji yaraax la itam nee nañ du tax jàpp mi toj moo tax mboole ci min xëy na yi ci lu aji bu fekkee ne laal na ko noonu moom duñ seet ba xam am na ca bànneex wala déet duñ seet ba xam bo ca bopp ba la ko laale wala ci feneen ca sowukaay bi lu ci mën doon ci sart dajee moom xam laal na ko lu xong li ba noppi amul dara lu dox digganteem ak loxoom dox digganteem ak sawukaay ba su boobaa kon jàpp ma dana toj moom góor gi wala yan taqibu du firiku nag bi nafsihi ci laalam min fawqi xaailin ci ko aji digale wala kaan ak dont nekkoon na xafifan di aji woyof nee bu fekkee ne ba mu laal sawukaay ba laalul jëm ja dafa laal ci kaw tubéy wala sirib ba am na dox digganteem ak loxoom daal doonte loolu taxu ko tal dafa woyof itam tax njaat mi toj laa bil qaxqaxati du caagee nit xaqtaay fi salaati ci julli du ko tudde xaqtaay waaye mooy reegu am kàddu maanaam di julli ree reegu am kàddu jëmm julli ko dana yàqu waaye wax ji gën mooy jàpp mi ci boppam du ko tax a toj wala bi nafsi imraatin du caagee nit ci laalu jigéen farjaha ab sawukaayam xalul madhabi ci ngirum Maalik waxee ne waxees na it ne yan xub bi dina fi di njàpp ma mutlaqan ak nu mën di demee waxila waxees na ne yan xuddu dana firi njàpp ma in xabadat ndéem ngëpp wala mu lonkal baaraamam ay li ci nam àdd xalal dugal na yaddaxaa loxoom bay na chafreha diggante yaari wàllam ya hmm. bu la neexee diggante yaari tuñum waaye mën nga diggante yaari wàllam ya rek wala yan taqidu waaye nag du firiku in nasat ndéem laal na zahirahu kawam kaw sawukaay bi may muy bitti ba rek maanaam jigéen bu laalee sawukaay bi dafa am wax ci ngir mi daa ñu wax ne nu mu ko mën di laale tax du tax njàpp ma toj loolu muy benn bi ñeen ñene nu mu ko mën di laale rek njàpp ma toj na muy ñaareelu bi ñeen ñi teqale ko ne bu fekkee dafa dëccaa ngëpp wala mu dugal baaraamam ci biir kon dana toj laal ci kaw rek moom du toj waaw loolu nag ñetti na fi dafa mel ne bi nga xam ne mooy teqale mujj bi mooy bu dugalee baaraamam ci biir wala mu ngëpp ca mu toj waaye bu laalee ci kaw noonu laale ci kaw dong du toj wala bi masjid duburi du jaageenu ci laalu buntu suuf wala um tayeen du jaageenu yaari waay yàlla maanaam jàpp noppi laal buntu suufam mooy fi xayta yi génne wala laal yaari waay yàlla yi te laalul bant bi nga xam ne ci la saw mi génne ba tey loolu tax njàpp mi toj wala bil inhaasi du jaageenu ci jógul sàkkara min xëyri lazat njilul bànneex maanaam bu jàppoon ba noppi ab sawkaayam jóg rek yem ci waaye dara génnut bànneex ba mu wax jëlu cee boole ba amoon bànneex tam noon la sowkaayam dong jógee daal te dara génnul rek donte am na ci bànneex lu tax njàpp ma toj wala bi nadati du jaageenu ci bànneex bi nadari ci xool min xëyri masin ci lulul masiw maanaam bu doon xool jigéen ba am bànneex ca xool ba donte sowkaayam jóg na waaye dara génnul rek bànneexu kese bi wala sowkaay bu jóg ba waaye masiw génnu dara génnut du tax njàpp ma toj wala bi tafakkuri du caageenu ci xalaat mahal lazati ànd ak bànneex fii xal bii ci xolam ba tey min xayri inhaasin ci lu jógu sàkkara bu doon xalaat ci xolam jigéen ba am bànneex moom da cee boole te am sawukaayam jógut waaye mën nga ne akay ah bu sawukaayam jógoon tam noonu la doonte xalaat gi am na ca bànneex sawukaay ba jóg waaye dara génnul rek génn dara ga daal moom moo cay tax njàpp mee toj waaye bu dara génnul rek moom doonte jóg gi am na jóg sawukaay bi am na du ko taxa ñàkkum jàpp mooy taxul jàpp ma doj faran yi lii ñaari bànqaas la maanaam lii ñaari àttey fiq la al awalu bu njëkk bi dañoo wax ni al qarqaratu jooyub biir ak shadidatu guy aji tar tooju bi dana waral alwudoo ak njàpp daa am ñu wax ne su su biiram jooyee jooy bu méttee métti dara ci mu waaye biiram jooy na bu métti kon say ba mu jàppaat waaye jooju wax bu ko jàpp maanaam jooju wax dañ ko kenn dëgëralu ko doyug biiram du tax njàpp mi toj loolu mooy wax mooy wax yu gën a wóor attaani ñaareel bi xaala wax na fil kitaab bi ca ca mu dawana xaala wax na moom Maalik fil kitaab bi ca téere ba muy mu dawana al mu dawanatul kubra delluwaayu waa Maalik yi la maanaam seen seen téere la boo xam solo ci ngërëm mi seen delluwaay la mu ne Maalik wax na ca ne inshallah dem julli na moom waa ji waxu te moom yu daa fi dana ji dana jiñanteeg alxadas am toj axaada mu baam abadan faaw mais mal dafa wax ne bu fekkee moom ba muy julli dafa yàkkamte dem ci wana wa ba mu ngi bësanteeg li nar a génn kon say boo rek mu julliwaat waaye nag sëriñ koo teqale mooy wax na al asiyaaxu sëriñ sene hmm, in man a xaw xan dem tere na ko daalika loole min tamaamil faraayidi ci matuk farata ya axaada mu baam abadan faaw wa in mën a xaw woon dem tere na ko min tamaami sunna ci matuk sunna ahada mu baamu fi waxtu ci waxtu wa wa in mën a xaw woon dem tere na ko min tamaami fadaayili ci matuk yi falaa te kon deetu baamu alayhi li ko ci war woowu mooy yemukaay wi dañ koo teqale wax ne ni yàkkamtee dem ci wanoo ba mu dee julli dañuy seet ba xam bu fekkee yàkkamtee dem ci wanoo tax na farata yi manqué am na farata joo xam defu ko waaw ngir ci wanoo kon moom faaw day ba su fekkee li mu yàkkamti yàkkamti teewul farata yi mat na sunna rek la manqué de sunna rek moo manqué ngir yàkkamti dem ci wana wa kon day baamu ci waxtu wa bu ñu ne day baamu ci waxtu wa nag mooy gi julli baax na su waxtu wa xasee jeex du jar baamooti mu des nag yàkkamti woon naa dem ci wana waaye fexe na ba farata yi mat fexe na ba sunna yi mat li rek ngëneel julli rek moom la ci am yu manqué benn mbaalu ko ëpp kooku moom du aajoo baamu ndax ngëneel moom boo ko manqué la itam sa tuyaabay manqué rek waaye moo gën a woyof ak taalif ñetteel bi zawalul xaqli mooy rëccum xel mën nga ne tam dem xel bil ixmaa ci ak xam awil junooni wala ak ndof awi sukkuri wala màndi kaana moo xam nekk na ak sukkuru màndi ga bi xaraamin ci aj araam aw xalaalin wala aji lew aw bi naw min wala ci nelaw in saqula ndem diis na wataala mu yàgg aw xasura wala mu gàtt dafa wax ne bokk na ci tax mu ñàkkum jàpp gannaaw ba mu jàppee ba noppi mu tàggoog sagoom la ko tàggalee sago mën naa doon xëm wala say ak ndof dab ko wala màndi doonte màndi gi sax araamut ndax tëyu ko daa naanum soow rek wala garab rek mu màndal ko moom mu màndee ci lu ni sàngara ñoo yemoo ndegam tàggoo naa sagoom rek moom jàpp mi yàqu na mën naa am sax la ko tàggalee sagoom doon nelaw nelaw yi bu xësee diis nga xam ne dana ko wax léegi ku dikk doo ko yëg ku wax kàddu gu xumb doo ko dégg kooku yéen dafa diis kooku kon njàpp mi ñàkk nga ko mooy ña jàpp jàpp ne yorotoon jàpp duñ seet nag ba xam nelaw yàgg na wala yàggut ndegam xës na diis rek moom njàpp ma yàqu na bi xilaafi naw mi ci wuuteeg nelaw alxafiif yi aji woyof fa innahu naka moom laa yanqudu du firi njàpp ma walaw taal ak doonte yàggoon na waaw ah, neen melu woyof moom wax ne waxuwa moom ya nga xam ne yashuru dana yëg saaxibuhu boromam bi man ci ka nga xam ne yadhabu dana dem woo man nga xam ne dana dikk nelaw yu woyof mooy yi nga xam ne ku dikk nga yëg ko ku génn mbaa mu dugg nga yëg ko lu weer sa loxo bu rotee nga yëg ko ku wax kàddu gu xum nga dégg ko kooku moom du yàq am jàpp wa thaqilu aji diis ja nag xoo moom allësi mooy ya nga xam ne laa yashuru du yëg saaxibuhu boroomam bi daalika ci loolee yàlla lu diis nag mooy yi nga xam ne moom du yëgatul dara boobaa nag kon moom lu mu gàtt gàtt jàpp mu yàqu wa yaxarumu dana araam xal muhdisi ci aju toj le asalaatu julli maanaam ko xam ne am ngam toj li fekk ngay jàpp ndegam jàpp la war wala li fekk ngay tiim ndegam sa tiim mooy farata yi ñu wax doo ko sañ ñu sañoo genn julli moo xam gu farata la moo xam gu naafila la wat tawaaf ak wër kaaba doo sañoo wër kaaba moo xam wërug farata jàngal xuraan sujoodu jàngal xuraan ñoo xaw a doo ko mën te wéroo njàpp mi mbaa tiim bi fekk sa farata doon tiim wa sujoodu jamooc maanaam boo juumee ci julli bañ digal la sujoot sujoot boobu faaw dina aajowoo nga amee ak laab bu fekkee amee ak laab hmm, am toj nga yore doomu ko wa marsul mushaf ak laalub kaamil bi yadihi moo xam ci loxoom la koy laale aw bi xoodin wala ci bant maanaam doo mën a laal ab kaamil moo xam sa loxo wala ci bant baa ci musuwaar baa yooyu doo ko mën a laal daal ndegam amee woon jàpp wala boobu bu fekkee sa farata mooy tiim nga door a tiim waxam luxoo ak yenoom moom kaamil bi bi xar yu tatin ci aw der aw xillaaxat wala aw gàddukaay nee na bu nee bu laal jëmmi kaamil bi der wa ko ëmb wala gàddukaay ba nga xam ne moom lañ koy gàddoo sax doo ko ci mën a jàppee ni ki buum nga dañ koy yeewee nga yëkkatee ko ko doo ko sañ waaye joo sana dagan masul lawxi laal àllooja lil muallimi ñeel aji jàngale wala mutaallimi ak aji xamlu mooy aji jàng àllaa xëy di wadooñ ci lu ñu jàpp waaw ah, neen daañu la may bu fekkee dangay ngay jàngale ci àlloo ji mbaa nga ci jàng yow ci sa bopp ñu bind ci alxuraan du tee nga mën koo laal te fekk ni yoroom jàpp wa masul jus i ak laal ab xaaj li mutaxallimi ñeel aji xamlu walaw kaana ak doonte nekkoon na baali di mu kàllaf bu fekkee da ngay jàng ci alxuraan jukki ba ngay jàngee daañu la may nga yor ko te fekk yoroom jàpp moo xam na nga cay jàng moo xam na nga cay jàngale ba tey ci boole bu fekkee mokkaloon nga gannaaw mel ni nga xaw a fët nga bëgg a ba tey dañ la yemale koo xam ne mokkalutoon daañu la may ngay laal jukki ba ngay jànge te fekk ne yoroom jàpp wa yukrahu def na sib li sibyaani ñeel gone ya masul mushafi laal kaamil ba aljaami bay aji boole lil quraani ñeel alquran min xayri wudooyin ci loolu njàpp gone moom nee na buñ sañoon du laal ab kaamil mbat sëkk te fekk na jàpput agul ci aram ni mag nag waaye buñ sañoon rek bañ koo def waaye na bu ko defee du ko tax araam ni muy araamee ci mag faslul li wa mujibaatul xusli way waral cangaay arbaxatun yent la maanaam yu waral cangaayul farata yent la inqitaaxu damil xaydi doguk dereti mbërëk wa damil nifaasi ak dereti wasin wal mawtu ak faatu ab julit wal janaabatu ak janaaba nee na yi tax a sangu farata yent yi la jigéen bu amee li ñuy wax reegal li wax mbërëk ci wolof su demee ba jeex dana war a sangu farata wala jigéen bu amee dereti wasin dereti wasin mooy deret joo xam ne am dooma ko waral su demee ba jeex moom it dana war a sangu farata ab jullit bu faatoo ab jullit bu faatoo ñu war koo sang bala ñu ko jullee ba di ko jébbal boromam ak ku amee janaaba janaaba moom noonu ndegam moo xaw a gudd moo tax mu mujjee ko te moom lay bëgg a wax waxee moom janaaba nawaxaani yaari xeet la xoroojul man yi mooy genn man yu al muqaarinu bay aji lëkkoog li lëddati ñel bànneex al muqtaadati bari buñ baaxoo min rajuli tukkee ci góor aw mar'ati wala jigéen fii nawmin moo xam ci nelaw la aw yaqazatin wala ci yeewu bi fat xaafi ci fataa xaaf ga yaqaza lay wax naa xaaf gi nekk da nga koy maas ci kaw loolu moo tudd fataa ci naxu maske ci kaw dit jum nawm mooy sawaanum nelaw nee na benn xeetu janaaba bu njëkk bi mooy su fekkee ni man yu génn ci moom te ànd ak bànneex su fekkee ànd ak bànneex ni ki jiit moo ko fett rek mu daal di génn loolu aw metti da ko génne kooku du day toj jàpp am ñu raxas ko fa mu taq rek waaye du tax su mu waral sangu farata tam doon bànneex ba ko daa génne bànneex ba ko daa génne mooy lu laalante ci yaram ak lu ndax bu dee jotee sawukaay bi moom day xaaju boppam moo tax day xe day xaaju boppam waaye kon ngay wax ne la ko daa génne mel ne laalante ci yaram wala lu ko nuru bu fekkoon ne am na ca bànneex waaye bokkut ak ko daa génne nit ki da ko jur góotu rek mu neex ci moom wala am ràmm ràmm dal ko. wokk ko rek mu daal di génn fekk mu am bànneex ci wokk gi yooyu yëpp bànneex la waaye du ko daa génne ba yooyu day toj jàpp rek ak raxas fam ko taq waaye du waral sangu farata waaye nag bu fekkee génn te ànd ak bànneex ba ko daan génne boole ci moom moo xam daa fekk kookee nelaw moo xam nelawut du tee moom sangu farata war ko am waxat yi jibu amaana ba dina war alxuslu cangaay la li xorooji yi ngir génnam mu xayri na lazzati ci lu dul lëkkaloonteeg bànneex bis lu yu jaameha kem mu booloonte mu yoon sirtu wàccewul man yu su ma yaxal yu man yu xabla an yaxta si ci njëkk muy sangoo dañoo wax ne matu ko ndax daa wax ne xëy na am ko génne man te jëmmi génn ga àndut ak bànneex te du tee sangu ko mu daal di koy misaale koo xam ne daa jote ba àggal te amu ci bànneex